activité bii yéen jigéen ñi yéen a ko moom ndax loo xam ne nii dangaa waroon jóg di ko wuti fu nekk di ci def xaalis ñu ñëw pour defal la ko pour xool sa wàllu wér gu yaram loolu lu am solo la muy cancer du col utérus ñaareel bi beneen bi ci dooleeku mooy képp koo xam ne jigéen nga rek war ngay fàggaliku ci planning familial ndax nekkul ne wàññi sa njur la wante ànd ak sa wér gu yaram la ci sa biir njaboot soo gisee nag ñu di ko wax nit ñi naan lii wala laa dañ luy yàq lay doon waaye luy defar moo tax a jóg waa kon ñu leen di ñaan tey wax dëgg yàlla képp koo xam ne nii jigéen nga rek tey wax la ko rek ne la intéressé nga ñëw tey ànd ak ñun journée bi da xam ne njëriñu askan bi la njëriñu seen mbirum jigéen ñi intéressé na ku ne ndax ku ne bëgg ngaa xam sa yaram léegi ñu wan la li nga xam ne moo ne sa yaram nga ab te am jàmm yal na ci ab te ci kàttanu yàlla li ci des mooy mbirum euh, planning bi buñ ko waxee dañ naan lii ak laa te fekk planning bi sa njariñ la yow jigéen bi njariñu ko góor gi sa poos bi dina yaxam sa doom wér sa jabar noppal ndax boo wéru sa doom wéru noppalu ba am li ci des mooy yow miy jigéen soo melu na nga war a mel waaye day seeti ku mel na na ko neex kon nag nañ góorlu ci loolu ñu bàyyi ci xel wasalaam communautaire yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi est-ce que ñu ngi jàllale message ci population bi di leen sensibiliser ngir lan moytu ndeel te yaay ak doom bëggatuñu gis benn jigéen bi mucc di ci ñàkk bakkanam wala muy ëmb bëggatuñu gis benn bébé bi juddu moins 22 jours ba ci 42 décès néonat bi am li ngay seetloo sa bopp mooy da gis baax weeru ne jigéen bi seetlu boppam sax bu waree toll ci ovule buy sëy da koy yëg man jànguma ko de dama koo dund ndax jigéen laa ni yéen